ñu jàngi bi ñu xëy na ñu jàngi bi ñu wàccee ñëw fekk ma defar ñu jàppale ma sama sœur bee su ma fi nekkulee moom mooy sebet def yëpp ñoom bu ñu ñëwee wali bu ñu walee ba pare mooñ suñu mooñee ba tay pare ñu dem réviser waaw bu ñu yeewoo bu ñu ba fobeeree ba jàpp julli ba pare dañu xooj dugub bu ñu xoojoo dugub ba 11h midi ñu sebet yóbbu ci machine bi mu war 3h ñu commencé mooñ pare 6h. sama jamonoy maam boobu loxo xalaa ko daan sokkee fajal lay xay soq su ma soqee foofu su ma foofee ba pare daal di koy mëpp tuuti sebet dem wali su ma walee doog a ñëw mooñ tey sama maam boobu la ma doon may mbaa bu machine amuloon mu sa loxo waaye léegi ñun yàlla suturaal nañu ba léegi am nañu machine da ngay fay ñu soqal la ndax yow boo ñëwee sebet bi rek ngay def su fekkee sentir nga ne lii am na suuf nga jël tamit sànkal nga lay doog a sebet. bu njëkk dugub bi mu amee yomb. ma ci am xaas mais léegi dugub bëriwul yomb tañ man mënu ma jaay lu seer loolu tax dina ci am rek sama wërsëg mais duma ci am lu bari metti na de mais nag xam nga ku amul soo yorulee foo nga nag nangoo sonn ndax boo boo rusee ñaan talal loxo foo nga foo nga sonn di nga ko liggéey ci fierté parce que doo ko yëg parce que day nga am fierté boo xamante ne li ngay liggéey danga naa moo may fajal sama solo foo ma def ko ndax rus naa tax sama noonu ne ko sama kër dara amu fa yàgg naa ci mooñ bi ak tay bi yàgg na maa ngi ci forat di ci dund wax ma ne amu ci dal ndax maa ngi ci dund te su ma génnee am naa sag waaw bu ma mënee jàppale nag mu mën ci am ndox ma léegi jënd gu ma ci kër taxagu taxagu ma ci dara fii laa luwee di ci liggéey di jox sama doom ñuy lekk may fay école ku ci feeba ma débrouiller faj la ci noonu laay de mais maa ngi ciy sant yàlla nekk ndax sag la ndax tey ji su fekkoon ne balaa may teg ñëpp xam ko comme yàlla suturaal na ma ci ma ci dund di ci dundal sama njaboot di leen ci salal maa ngi ciy gërëm Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ndax tey bu loolu amul woon ñu bëri nañu dégg nañu gis mais duñu gis duñu dégg ndax sag bii li mooy suñu sag ci la ñuy liggéey di ci dund waaw su ma amoon lu gën moom ma jël maa ngi lancé appel madame Faye sal ndax dégg naa mooy dimbale jigéen ñi te ñun tamit amuñu urgence pour jot ko ñu bëggoon ne mu ñëw seet si ma man seen bu a fay ñëw seet si ma. mbaa mu jox ma audience ma seeti ko waaw. ci am nañu ci benn liggéey mënu amul développement loo am yaa ngi koy lekk di ko naan il faut ku nekk ñaan nga yàlla am développement ñun tamit bëgg nañu ñu ngi ñaan nañu yàlla doolu sutura doolu réew mi sutura may ñu wér may ñu wér la feebar bi fi nekk yal na ko fi yàlla jëlee ci kattanam moom mi nga xam moo ko indi woon yàlla nañ ko fi jëlee ci kattanam ñëpp dellu am paix jàmm am ci Sénégal